ah bon tay dañu ñëwoon pour soutenir suñu frère Mamadou Lamine euh, coordonnateur coalition Jomay président département Nioro bon dafa woté woon pour sagal les ex-détenus yi nga xamanteni ci combat bi Yalla def na euh, ñu ñu arrêté woon len. ñoo am ay métit yu bari yo xamanteni ni dundoon nañ ko ci arrestation bobu non donc euh, ñom le woté woon tay pour sargal len mom akwa magu passef département donc mu woñi ñi si ñu rafetlu woon trop événement bi raison pour laquelle ñu bayyi suñu jite yëpp ànd ak suñuy ñooñ suñuy mbokk suñuy sympathisants pour ñëw soutenir ko. waaw au fait euh, délégation bi moom damay wax ne souvent nekk rek ñun dañu bokk gis-gis euh, bokk ay ambition am loo xamante ni euh, gis nañ ko ci projet bi biñ ko taxawalee depuis solution ba tey ñu nekk di ci gëstu di ci di ci am loo xamante ñu ngi ko ci jàngat dem ba gis ci suñu bopp. yàlla def au temps opportun wala au moment voulu ñu dugg ci coalition Diomaye Président. liggéey ci pour que mu am changement dans le département de Nioro donc euh, ci même dynamique boobu lañ nekk rek di jéem a góorlu pour que au moins projet bi ñuy dégg mu am jeexital au niveau local parce que projet bi aussi dafa am déclinaison locale déclinaison locale donc euh, bëgguñu rek ñu ñuy toog dakaar di dégg projet projet projet dañoo bëgg ñi nga xamante ne dañuy yeewu ci département Nioro ñu sentir ñoom jeexital ci seen dund ne que projet bi ñuy wax de lii suñu dëkk lii la fi indi ci loolu lañ nekk di liggéey donc képp koo xamante ni da nekk ci coalition Diomaye président nekk ci dynamique boobu noonu am loo xamante ni jàpp na ne war nga ko mën a def ci ci projet bi liggéey ko au niveau département boo wootee dinañ ñëw taxaw lépp loo xamante ne mën nañ ko dinañ ko def bu dee xam-xam la dinañ ko def bu dee participation la ci euh, comment dire élaboration euh, vision stratégie bi dinañ ci nekk bu dee suñu doole la dinañ ko ci def bu dee aussi lu ñu amas néew lu ci mën a yokk dinañ ko ci yokk donc ñun loolu la ñu nekk euh, ci di actuellement ci projet bi à Nioro xam nga yàlla dafa def organisation boo gis dafa am moi j'ai intégré la coalition Diomaye Président avec mon mouvement euh, Alliance pour sa localité euh, tey bi ñu wootee boo xoolee ñi fi jël parole yépp dañu représenter euh, une entité au sein du PASSEF ou bien au sein de la coalition Lolu c'est très normal Lolu c'est l'ordre protocolaire man bu ma doon jël bu mënuma jël mënuma jël wax nom de la coalition Jomay Président parce que y a le coordonnateur départemental de la coalition Jomay Président qui est là Il y a le coordonnateur communal de la coalition Jomay Président qui est là Il y a les coordonnateurs communaux de PASSEF. donc man mënuma woon jël euh, parole sous sous une entité donc man c'est normal ma ñëw en tant qu'invité invité euh, teewal bés bi taaral ko donc ñëw moon pour jël parole dama ñëwoon pour répondre sama frère bi nga xamante ni invitation d'honneur la ma envoyé lépp lu muy def boole ma ci depuis campagne bi même campagne bi bu ñu toogee di kurti courti ba affaire yi kii daf ne woo leen Mamadou Seck ñu woote man ak heureux jour boobu sax man maa ngi woon Dakar nekku moon ñooxo mais logistique bi ñu yoroon à ñooxo dañ ko jël mettre ko à sa disposition ñu jël sillonné département bi donc moom yàgg nañoo boole du tey mu ngi koy wax tout à l'heure lebalante la rek nekul man mako jëkkal njëkk a lebal lebalante la yëg-yëg la parce que yëg-yëg yëg-yëg moo koy fay donc man dans ce cadre laa ñëwoon ñëwuma woon pour def discours buma ma ñëwoon pour def discours ko on allait régler ça avant may déplacé wu mais ñëwuma woon pour def discours dama ñëw pour taral bés bi parce que man ak mom dañu bokk lu ñuy xeex dañuy xox pour que coalition jomay président euh, am nu mu taxawé ci département bi parce que ñun dañoo xeex limu koy wax tout à l'heure dañoo xeex am mérite parce que fa am ñu fi nekkoon nak ñu ngi quoi qu'on puisse dire ñun on a soldé un compte ak Macky Sall mais quoi qu'on puisse dire dañu am suñuy mbokk yu fi nekkoon suñuy mag suñuy pap suñuy nijaay suñuy maam amoon fi ay responsabilité ci nguuru Macky Sall ci Benno Bokk Yaakaar amaloon njëriñ seen i mbokk amoon njëriñ ci dëkk bi quoi qu'on puisse dire loolu dafa am c'est réalité on peut pas être nihiliste donc ñun dañoo xeex ba jëlee fi ñooñu ñun aussi il faut ñu continuer xeex ba ñi nga xamante ni ñoom am na fu ñu ko féetee woon seen i mbokk ñun ñu jéem leen fa féetee ñun lool ci loolu la ñu nekk actuellement di xeex nekkuñ si ay weerante nekkuñ ci ay guerre de ñu soxla soxlawuñ benn titre honorifique lu ñu mën mooy bu dee xam-xam la bu dee loo xamante ne mën nañ ko as bu dee doole la ainsi de suite bu dee orientation la wala xel bu ñuy jox suñuy ñoñ ñu jox leen ko ñu boole suñu doole parce que mbooloo mooy doole jéem a pour comme ni ma la ko waxee tout Euh, projet bi ñu sentir njeexital bi au niveau local. alliance pour sa localité euh, dootuñ ko présenté nekk na mouvement boo xamante ni euh, daanaka précurseur la ci ba lu bari boo ñoro boo fa taxawee actuellement nga wax fa développement local luñ lay njëkk wax mooy alliance pour sa localité. def nañ fi am nañ fi woy woo xamante ni dootul fay on a été précurseur ci lu bari la preuve ñun li nga xamante ni moo ñuy réconforté. Euh, tax ñi nga xamanteni ñun dañuy tok di kontaan ci li ñu def malgré que yak yàq suñu alal yakuna ci malgré que lu nekk dal nañu ci malgré que ne que on a perdu assez de temps on a même fait des sacrifices au niveau familial au niveau professionnel tout ça malgré tout cela dañuy am fierté dans la mesure où bu ñu gisee tey benn politicien leader un jeune leader ou quelque chose comme ça juk di def ñooro rek da ngay jëm def comme alliance ni doon défé am ñoo xamanteni ils ont cette euh, honnêteté intellectuelle dañ lay wax nek ñun on a pris vos projet votre projet on l'a copié on a essayé de l'améliorer donc loolu fierté là. fierté là. parce que ñun bi doon def aussi on a toujours dit que ñun on veut gouverner par l'exemple dañoo bëgg parce que gënuñoo jekk ci def am na ñoo xamante ni ñooñu gën a jekk ci def Fouf! am na ñoo xamante ni ñooñu gën a mën am na ñoo xamante li ñuy jéem benn ñoom mën nañ ko téeméer mais defuñu ko dañoo toog ñun suñu objectif mo nekkon biñuy ñuy ci alliance ñu teg lo xamanteni ni ku ko gis dina ne ah xalé yi de li ñuy jéem rafet na rafet mo xamanteni suba bu ma ci yokkee dara rek dina am jeexital bu baax ci population Nioro ñun loolu mo taxoon ñuy liggéey c'est ci loolu lañ nekk L'alliance, alliance ci loolu lañ nekk ñu nekk alliance les membres fondateurs les précurseurs avons assimilé le projet bi projet li transférer le projet dans le dans la coalition Diomaye Président jël ci pàcc yi nga xamante décliner au niveau local comme notamment dans le domaine agricole ñu décliner ko au niveau local parce que ce ñuy ñun que ne dañoo gëm que le modèle de développement sénégalais le modèle sénégalais, parce que chaque pays doit avoir un modèle de développement. Le modèle sénégalais de développement doit être adossé sur l'agriculture. Il y a le pétrole, il y a le gaz, tout ça, mais l'eau, c'est des économies d'appoint. Sénégal agriculture moo comment on a développé te ñoo wax agriculture Sénégal mënoo wax agriculture Sénégal te waxoo bassin arachidier ñun fi Saalum mëno wax mbay te du jiitaloo donc ñun li wara a ñun ño wara li nga mo wara Sénégal ñun ñoo yor kon kenn waruñ ci jiitu ñun ci loolu lañ nekk di liggéey et on veut que le truc là soit vraiment assimilé ñëpp nekk ci dynamique boobu noonu li ñuy wax ay coopérative communale ak tout ça nit ñi teel ci jublu teel a xool lu ñuy orienté les les syné les les les synergies ci mbay. mbay def de telle sorte que euh, ñun ñu am une économie locale def de telle sorte que prix qui euh, kii comment dire euh, pouvoir d'achat bi mën a exister mën a gën a ñoñ ñoŋ. à Nioro ñun ci loolu la nekk di liggéey te déclinaison loolu la ñu jël pacc boobu la ñu jël ci euh, projet euh, coalition Diomaye président moom la ci tex bëgg ko jëmal incha allahu rabbi au niveau local.